billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci weer wu tedd bi di leen baalu àq te ji leen baal di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñaan yàlla koor gi dugg ci bismillahi rahmani rahim yi yàlla nañ ko mottali ak alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nangul ñu ko nangul ko bépp jullit bu ko def ci kaw suuf si ñu ñaan yàlla fekke loo ñu te bu déwén na ñaaw yàlla na dàq ren ci barke alquran ñu ñaan suñu wéjur bi nga xam ni moo daan taxaw lu mel nii muy alxaaji Baye Mass Fall ah yàlla na yàlla yokk leeram xaare ko àjjana yàlla na ba sax gi noflaayam ci barke alquran lépp lu ñu néewal yàlla dugg ca lam daan matal lépp lu ñu lu ñu juum yàlla na dugg ca ñàkk a juum kam daan def ndax wax naa ni moo ñu gën a bëgg jàkka ji wax naa ni moo ñu ëpp xam-xam wax naa ni moo ñu gën a miin téere bi wax naa ni moo ñu gën a cawar moo ñu gën a sawar kon nag euh, lépp lu manqué rek ah yàlla na ko yàlla dugal ci taxawaayam yooyu ci barke alxuraan def ko muy yërmande ci moom def ko muy def ko muy ah, barke ci njabootam waaye ñu ñaan yàlla ci barke koor gi sëtam bi nga xam ni moo ci lëndëm lëndëm yalla nako ci yalla genné ci barke bis bu tedd bi yalla nañ dem ba kenn ku nek xelam dalat yalla man nako yalla nako yalla def ñi ngi tollu ci ban aya aya ñi nañ 30 ñi 36 waaw bu ko defé ñi ngi ñewon ci wa iz ah, dafa absenté dafa demoon dafa won marché dafa won marché بوكو ديفي رغالنا ني رومبون نان وا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين رومبون نانكو رومبون نان واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين رومبون نانكو واي بوب موي بان ايه ترانياتا ياتا يا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمتن علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم بمونيك تران تران دوك آه. مانغوك نيجي مجونا جل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسدا ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ولدت انا قالنا سولو نيون سولو نيون فوف سولو نيون فوف دابور لان فال لان لاي جانغالي لو سار وي سيغني ها بوتين دو غير لان فال دينا امنو يان موين ديس am ñu ni mooy màng ñu sant faal nag nee mooy seen saar lan faal Sénégal a neex lan faal waaye nag lépp bëgg alxuraan la rek lan faal bu ko defee am na ñu ne Qur'an bay sant am na ñu am na sekk ñu ne mooy zakiyu ak azka huwa azka lakum bu ko defee lu ne mi ngi ci waaye ala kulli haal inna alladina kafaru ñi nga xam ne dañooy wedd yàlla inna alladina kafaru ñi wedd yàlla yunfiquuna amwaalahum danañu dépenser seen alal li yasuddu ngir ñu jéem a gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla wi ñoom de bu boobaa fa sa yunfiquunaha xaalis nañ koo dépenser ba noppi summa takunu topp mu nekk après mu nekk alayhim ci seen kaw xasatan pertange summa yuxlabuuna topp ñu not leen ñu noteef leen du ca yem de walladina kafaru gaa yi yàlla mooy les mécréants da ngay xaddam yuxcharuuna deef na leen fang ilaa jahannama jëm jahannama gis nga lan faal naa leen yan yan lay révélé yan lay révélé دفع ديك شابو جل بيتون ده غير يقولون ألوونو كأنجيل أنفالي بيتون ده غير هم يعقوني آه دا كوي تكفيرك دا كوي تكفير يعني يعني لا نسمي أم تجيري يعني كوي لا تي كم ل نعين خمني الأنفال لله والرسول نسمي كي كوي سيدنا موي كان يا الله أكو نيو كوي سيدنا من نجيل نعين انتر لي انترسيين موي فتقول الله يقولون ذات بينكم ragal len yalla ta xol seen digeunte mo upp solo am amu aduna yaakaar naa waxoon naa fi ah, mu tek ci lay wax ragal yalla ragal yalla woni ni ni ngeen top yalla ak yonentem nek ngeen ay julit in kuntum mu'minin ñu ne ko waa nag yàlla ñeen ñooy ay julit lolou su fekkoon tey yàlla joxewul réponse bi man na am duñ xam yan critère la doomu aadama nekk jullit waaye joxe woon critère yi ban ak ban la won ñaata la won ñaata critère la won ah juróomi critère la woon cinq critères yii la ñuy xamee ab jullit bu mat sëkk wala la ñuy njortan kii kat ab jullit bu mat sëkk la ban mu ci jëkkoon ah taxawal julli ku yow mii am nga conviction musulmane la jëkk mooy taxawal julli taxawal julli mooy sa jëb yi nekk ci kaw nekk gën a kawe ci sa jëmm ji nee ko rëpp ci suuf yalla xamni kon ñëw mi kat nangul ngoko waye julit la julit la mu yam ci lamiñ sa jebi sa do nga ko waye doko sujud muku ah sa julit ken du ko nangu beneen bi ah wakilu ci yalla moy wala ala ala rabbi tawakkalon koy bobu yit ci critères yi la moy wakilu ci yalla moy bul yaakaar keneen ku du suñ bon tabaraka wa taala yàllaay dundale are yalla ay joxe ay maye yàlla raye mooy kon kon wakkilu ci yàlla la ngay jaare ci Mansour Seck bu mu jox la kay wakkilu ci yàlla boo wakkiloo ci yàlla li nekk ci loxo Mansour Seck yaa ko moom yaa ko moom loo tax azaka am loo tax sarax am yaakaar naa démb am na ñu ci insisté woon lu bare bare bare bare ñetteel bi ah wa mimma razaqnahum yunfiqun mooy ñu joxe seen wërsëg kon boo nekkee jullit daa bokk ci am am bi nga am dee ko jël ñu ko xaaj di ci jël di jox say mbokkum jullit dee ko jël di ko jox say mbokkum nit kon loolu bokk na ci critères yi ak ban ah mooy alladina ida dukira allahu wajat qulubuhum mooy koo xamante ni su déggee turu yàlla am lu yëngu ci moom koo bu déggee lu yëngatu ci moom mooy xolam jàq xolam jàq kon li yàlla am ku ko laal sa xol jàq ku laal yàlla sa xol jàq ku laal foo mën a nekk sa xol jàq ku laal alquran sa xol jàq ku laal daara sa xol jàq ku laal jàkk sa xol jàq waaye ku laal nitu yàlla sa xol jàq kon kon kon loolu noonu la ñuy kon loolu bokk na ci li ñuy nattee doomu aadama moo ji ni kon juróom yooyu dafa ni alladina ida dafa ni ñu nekk ñi way gëm yi mooy alladina ida dukira allahu wajal qulubuhum moo ci jëkk mooy koo xamante ni même bu jàngul même bu fayul ijji waaye a sopp na ñooñ alquran sopp na ñooñ diine sopp na ñi yor jàkka yi sopp nañu yor jumaa yi sopp nañu yor daara yi waaye sopp na ñuy jagal pénc mi pénc mi mooy koo xamante bu bu bu déggee ñu laal yàlla wala lu aju ci ñi yàlla am rek xolam jàq ñaareel mooy wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan mooy koo xamante ni saa bu déggee alquran rek alquran gi dolli ci moom dolli ci moom kéemtaan dolli ci moom ngëm yàlla bu ñu jàngee alquran alquran ji dolli ci yow ngëm yàlla loolu nag wuute na li sëñ bi doon sallallahu alayhi wa sallam wax ni koo xam ne day jàng alquran te aaya yi du romb ay tuñam loolu baaxul mën a wàcceelu alquran lool waaye li alquran wax doo ci jaar bariwul solo bariwul solo mën a wàcceelu kaamil lool waaye ku loolu ci koñ bi yaa ko teg loolu baaxul mën a wàcceelu kaamil lool waaye nag sa bi li ci def lépp ay àq doomu aadama la loolu baaxul kon wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadatum imaanan mooy ñeenteel bi ñett juróomeel bi nag wa ala rabbihim yatawakkaluun moo ji ni ci yàlla dong lay wakkiilu bu ko defee loolu nag la wéyal comme ni kon ku lu may mel nii rek daanaka da dugg ci beneen giir gi may wax mooy yéefar yi yéefar yi nag léeg-léeg ñu muur woo diine dañuy gis koo xamante ni mën na sàngoo diine fekk ab yéefar la day am koo xam day sàngoo diine sàngoo dayub diine waaye fekk ab yéefar la jël ay am-am di def ci pénc mi jël ay euh, projet def ci penc mi fekk li ko yitteel mooy anéantir l'islam gàllankoor l'islam moo ko yitteel fekk diine lay mbugoo moo tax yàlla nee na gis nga ñooñu buñ jëlee la ñu am ba noppi seeni bien ak seeni am-am dépensé ko ngir gàllankoor diine danañu ko dépensé ba àggal waaye nag du tax diine daanu waaye ñoom ñooy daanu moo tax mu inna ladina kafaru ñi weddi yàlla yunfiquna amwaalahum gis nga وقل ان الذين كفروا وانفقوا utiliser wul verbe passé da fa utiliser verbe présent moy l'action inaccompli moy ina zin kafaru yunfiquna la wax yunfiquna de nga yunfiqu day nek ala sabil al istimrar moy lay continuer rek lol moy li ñi jàngale usul di wax nan al ibratu bi umum al lafzi la bi khusus sabab moy di man nam am bi ma nga wàcce woon ca yéefar ya waaye kat ba léegi day continuer di am di am influence aay bi day day day dox ba léegi moo ji ni ñii la ñu defoon ngir gàllankoor diine bay laa yu ma diin ku ko defit da ngay dugg ci lii kon lu mat na bàyyi xel kon képp ku jël képp ku jël ab assemblée wala ab loi ngir naa ko teg ngir gàllankoor diine da ngay dugg ci lii inna ladina kafaru am waalo képp ku teg ku jël am-am wuti ay financement ngir lan naa ko dugal ci réew mii ngir gàllankoor l'islam dooleel samay renseignements généraux pour ñu gàllankoor diine gàllankoor jàkk yi gàllankoor daara yi gàllankoor jumaa yi dangay dugg fii dégg nga ndax lan action bi day continuer loolu mooy al ibratu bi umumi lafzi laa bi xusuusi sabab moo tax alquran bis bu nekk day wéy ba ba ko yàlla wàcceeg léegi def na quatorze siècle waaye nag ba léegi la ñoo ne defoon yàlla dal seen kaw yàlla tëpp leen tey jii man maa su Seck su ma ko defoon ñooña la leen yàlla tëppoo damay dugg ci biir loolu tax alquran bis bu nekk day gën di day gën di bis bu nekk day servir moo tax indi la gën a kafaru ñu weddi yàlla yunfiquun dañuy dépenser gis nga dañuy dépenser doo wax doo wax joxe nañu da nga am dañuy dépenser parce que action bi jeexagul yunfiquuna dañuy dépenser amwaalahum seen alal li yasuddu ngir jéem a gàllankoor da ngir jéem a gàllankoor ndax diine kenn mënu ko gàllankoor lu Qur'aan waxoon ca saaru saafaat innahum lahumul mansuruuna wa inna jundanaa lahumul gaalibuun mooy na ngeen xam ni yéen innahum lahumul mansuruuna da ko confirmé na xam ni yéen les musulmans yéen yéen ay yéen laay dimbali xam nga ki la ngeem ba àggal yow laay dimbali léegi sa xel dal kilo yoon yónni ba noppi nekk sa gannaaw jox la arme dooleel la ba noppi yor kuusam di ñaan da ngay am da ngay rassuré ni man danaa gañe loolu la yàlla jëflanteeg jullit ñi mooy innahum lahumul mansuruuna mooy yéen yéen am ndimbal te wa inna jundana lahumul xaalibuuna sama soldaar yii sama soldaar yii ñoom ñooy not dégg kon nee na kon lii moo tax kon li yasuddoo pour jéem a gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla wi yàlla ni fa sa yunfiquunaha xalse nañu koo dépensé xalse nañu koo dépensé gis nga mooy kii kii toog sax di am xalaatu gis nga parce que génnee gu ko de waaye mi ngi toog am waxe gi da koo indi présent arab daa am présent am futur arab daa am présent ba noppi am futur présent bi mooy fekk amagul siin wala sawfa su ma su ma su ma nee adhabu maa ngi dem mooy jave adhabu maa ngi dem mais su ma nee sawfa adhabu ila Dakar mooy j'irai à Dakar gis nga sawfa wala boo ma sa adhabu sa adhabu verbe bi adhabu gi ma dolli ci siin ci début bi commencement bi sa adhabu danaa demi Dakar danaa demi Dakar gën kon bu dee bu azab bi nak mom azab dong dong dong nak moy présent bi sok do doolee sin ci kanam gi ci kanamu azab gi wala nga doole ci sawfa ci kanam gi rek mom moy dana ko defi ji yalla fi fa sa yunfiquna ha dafa ni ñu ko dépenser ji dégg kon ki am ki am ki am perspective indi financement buy ko islam wala ben force buy ko l'islam da ngay dugg fii fasa yunfiquunaha xas nañ koo dépensé suñ ko defee ba àggal nag su ma takkuunu topp mu nekk nga xaddam xasatan pertange alayhim ca seen taw su ma yuxlabuuna topp ñu noteef leen ya nee na ñu noteef leen yàlla nee na walladina kafaru gaa yi weddi yàlla yuxcharuuna ngay jëkk ngay jëkk liir yuxcharuuna dees na leen dekkal dees na leen fang ilaa jahannama jëm ci jahannama jiital fang mooy ku ñu jiital jiital leen ñoom ñëpp gurgurle kay mooy gurgurle dañ leen gurgurle yóbbu leen safara yàlla nañ ci yàlla musal lu tax lu tax loolu lu tax loolu lu tax loolu di am yàlla nee na li yamiisa ngir na distinguer ngir mu ràññee ngir na ràññee allahu yàlla alxabiisa ñooñ texee di alxabiisa mooy ahlu shaqaawa alxabiisa ñooñ ñooñ texee di min at-tayyibi ci ñooñ texe gis nga bu ñaari baat yi alxabiisa ak at-tayyib alxabiisa mooy ñi nga xamante ni yoon wi ñu tegu suñ ko wàccul fa mu leen jëmee du baax at-tayyib mooy ki nga xam ni yoon wi nga tegu am ci yaakaar soo ko wàccul fa mu jëm yow mooy àjjana yal ci yàlla boole jàng ca saaru euh, saaru saaru نور الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون بما يقولون غيسنا نانا نانا ني بون الخبيثات ني بون الخبيثات جيجين ني بون للخبيثين ني مينغو بور ني بون ولا ديت لول موي كويرانس يالا نانا alxabiisaat jigéen ñu bon lil xabiisiina ñoo méngoo góor ñi baax góor ñi bon wa tayibuuna góor ñi teey comme yi comme actuellement yi ma gis wa tayibaatu wa tayibaatu jigéen ñi teey ñi li tayibiina ñeel na góor ñi teey ñi góor gi baax kay lu mu war a am jigéen ji baax waaye jigéen ji bon ku mu war a am góor gu bon wa tayibaatu li tayibiina gis wa na mu mu ñëw mu ñëw feddiliwaat ko wa tayibuuna góor ñi teey li tayibaati ñeel na jigéen ñi teey dégg nga aaya bi am na ñu ci wax ni loolu moo tax ñaare bu kuñ yëg nii mu ngi wéet ak jigéen di njaaloog moom ngal la waay nañu te ne kilifa yi teel a taxaw ñu leen ah, parce que ñoom méngoo di ñiy làqatoon di gisante ci ruq yi nañ teel a taxaw maye leen aaya bi aussi moo weddi ñiy wax ni jigéen boo ko xasee xam araam na la am na ku ma ko laaj bëgg dem par whatsapp ni ma jigéen est ce que di nga ko xam ba noppi di ko takkaat man mooy xam gi mu ni ma moo di ni kii nga xamante ne waa ji am na ak moom doom am na ak moom doom araam na ko ba faaw ma ne ko déedéet ma ne ko am doom doom jooju l'islam considéré ko ci baay bi ndax baay amu fa doomu yaay ji la waaye doomu baay bi. ndax bàyyi amadu fa boobaa boobaa nag ndaw si bu bu fekkee ëmb gi am na ba mu am doomam balaa waaye waaye kooku sax moo gën a yey ci moom ki ko tooñoon moo gën a yey ci moom nag kilifa yi gaaw waxtaan ñu may leen bala mu ko cay tegaat ndax alxabisaatu lil xabisiina waaye nag wa tayibaatu li tayibiina ki teey mu wóor na kii ñaar ñii bu ñu àndee doom yu baax dong la ñuy am doom boroom xam-xam dong la ñuy am ñu am jom dong la am waaye waaye na kilifa yi gaaw dox yombal ko maye leen ñu sëy moo tax loolu mooy weddi kàddu googu di nit boo jigéen boo ko xamee ba noppi it lislaam taxaw kilifa yi taxaw comme dëkk la boo xamante ni doo fi téeméer yàlla bariwul ci fu ñu koy defee doo téeméer yàlla fii bariwul ci ay gox yu ñu koy defee am na gox nag ñu koy def ci senegal fii ragal naa ni canaba ñi ngi koy def moo tax néew na fa lool par rapport ak yeneen zone yi moo tax atte yàlla atte yàlla wallaay mooy oyofal penc yi atte yàlla muy indi diis diisu penc yi atte yàlla bu ñu ko toppoon rek léegi diis diisu penc yi jeex kon kon liya miisa ngir na ràññee allahu yàlla alxabiisa ñi texee di alxabiisa ñi bon min a tayibi ci ñi baax wala nga ne ñi texee di min a ci texe waaye xam-xam yi wax nañ ni alxabiisa min a tayibi mën nañ koo firee yëpp ni ñu xàmmee ñu xàmmee ñii dépensé ci yoonu yàlla ak lu dul dépenser ci yoonu yàlla ñii dépenser ci yoonu yàlla pour dëgëral ko ak ñii dépenser ci yoonu yàlla pour dooleel kufru am na ñu wax ni am na ñu wax ni loolu loolu lay firi loolu loolu ki ko wax mooy ibnul anbaar yi ibnul anbaar yi nee na alxabisa min altayibi ah, nee na alinfaaqu nee na mooy almunfiquuna fi sabilillahi wala boog wala boog li yumayyiza li yumayyiza ahlul imaani alladina yunfiquuna fi sabilillahi min alladina yunfiquuna fi sabili shaytaani fi la Ibnul Anbar yi wax nee kon mooy mooy ñii dépensé ci yoonu yàlla ngir mu dëgër ñoo ñooy mooy ñi ngir yàlla ràññee ñi teey tey dépense tey joxe ci yoonu yàlla ñi teey tey joxe ci yoonu yàlla koo xam dafa baax yiw am amam xam ni am am bii kat ah su ma ko jëlee def ko ci jàkka ah léegi jullit ñi gën a bari naa naa ko ci def wala nga ne ah man kat gis naa ne asuyaay mii ah tele diine la tele la buy dëgëral kuru diine yi tele la buy dëgëral islam tele boo xamante ni day dooleel day dooleel njàngaleem sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah naa yëkkati am am def ca. ndax bu dundee léegi waalee gën a bari te bu waalee baree léegi doom yu baax gis nga mooy li yamiza allahu alxabiisa min atayibi pour yàlla ràññee kii joxe ci yoonu yàlla ak ki nga xam ne daa bon di joxe pour yoonu yàlla fay yàlla na ci yàlla musal nee na kon li yamiza gis na ràññee allahu yàlla alxabiisa ñi bon alxabiisa ñi texee di min atayibi ci ñi teey ci li teey wa yajala daal def moom yàlla alxabiisa li bon wala boog ñi bon baadahu lennam ala baadin ci lenn bu ko defee fa yarkumahu fa yarkumahu mu dajaloo mooy mbon ngi dajaloo mbon gi dajaloo fa yarkumahu jamian mu dajale mbon gi yëpp mu dajale mbon gi ñoon def dépense yu bon yëpp fa yajaaluhu fi jahannama nee na mu xëy xëy fa yajaalahu fi jahannama yàlla xëy def ko jahannama nee na ulaayka gaa yooyu hum ñoom ulaayka gaa yooyu hum ñoom alxaasiruuna mooy ñi perte ñi yàlla nañ ci yàlla musal ne lu mooy perte dëggantaan jaay perte dëgg dëgg dëgg dëgg mooy liggéey am am ba am ko wala nga liggéey pouvoir ba am ko waaye am am bi ak pouvoir bi lenn dong nga ciy def mooy naa gàllankoor l'islam mais loolu fa la pertaa nga yem sa am am dina dem te doo am tuyaaba sa am am dina dem yow yaa ngi jàngoon sa njàng sa xel sonnoon na sa wéyjur son doon fay nga jàng ba àggal am am am wala nga am pouvoir pouvoir bi yëpp lenn dong la tax a jug mooy naa gàllankoor diine diine l'islam kon perte nga ñaari yoon ndax li nga joxe دوتي ام يالا تا بو لغي دا نا ام دوما يالا نانا كون اولائك غا يوي هم نيوم الخاسرون نيوي واي بيرت ني موي الخسران الحقيقي موي بيرت دغنتام قل نغا واخ يو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للذين كفروا نيغا خامتني دانيو ويدي يالا ني ان ينتهوا بونو دايتالو بونو دايتالو موي بونو واغنيكو بونو تريو بونو دايتالو bu ñu bàyyee lañu ñu nekkoon tuub ci yàlla bu boobaa yuuxu far def na jéggal lahum ñeel leen maa qad qad salafa maa qad salafa la weesu woon ci ay bàkkaar allahu akbar ak cedd ga nga nekkoon nee na boo tuubee ci yàlla wàññeeku yàlla nee na man ma baal la la nga paase woon ci ay ñaawteef xam nga wax naa fi démb ni ni sallallahu alaihi wasallam. waxna ci hadithul qudsi ni suñ borom neena bu fekkon du ngeen def bakar tuub ci yalla taban cee delluwaat bu fekkoon defatu leen loolu ma ray leen yéen bind ñoo dama len di indi fi ñu def bakar di hamman di xam man may kat ndax tuub reconnaissance la tuub reconnaissance la waye nak waye nak bu mu nekk tuubu senegalais tuubu senegalais ñaare moy tuubu wéru koor wala tuubu ben moment tuubu tuub tuub tuub zuuru zuuru feetu diine boo tuubee daal di nga sol sa lu weex yor sa kurus sol sa mbaxana tuub nga waaye bu samedi ak dimanche nga delluwaat ci ci safaan loolu moom naxoo yàlla sa bopp ngay nax quran nee na ca saaru baqara yuxaadicuuna allaha walladina amanu wa maa yaxdacuuna illa anfusahum wa maa yashcuruun yéen a ngi jéem a nax yàlla waaye naxu leen yàlla seen bopp ngeen ngeen nax alors que yëgu leen ko dégg nga moo tax soo bëggee xam nan la ñuy tuube rek jëlal téere Laxdari bii nga xamante ni kenn ku nekk jàng na ko boo demee page bu njëkk ba bu jeexee deuxième page ba ca la wax na la ñuy tuube condition tuub ca la ko jàngale lu mu waxoon wa shurutu tawbati lu mu jëkk wax an nadamu ala ma faata ba nga sabaaraam ñaareel mooy wa niyatu an laa yahuda ila danbin fi ma baqiya min umrihi ñetteel ba mooy wa an yatruka al maasiyata fi saatiha in kaana mutalabisan biha di mooy tuub xam nga lan ci olof mooy yéene réccu yéene bàyyi ki saasi loolu mooy tuub réccu réccu mooy regret réccu yéene ñu doo ko defati ci lu des sa dund gis nga ci lu des sa dund mooy wa niyatu allah yahuda ila zanbin fii ma baqiya min umrihi moo ñu ne ay man maa ngi naan sàngara rek gis nga ay man boo nee ay man rek rëccu dugg na ay man am naa ñaata at am naa quarante ans am naa trente am naa soixante ans maa ngi ci sàngara rek kon boobu rëccu dugg na nga ñëw ci deuxième étape bi nag mooy ah wa niyatu allah yahuda ila zanbin fii ma baqiya min umrihi le nak amna yene inshallah li des ci sama dundu dootuma def gis nga fofu nak la la jume ñun ñun dañuy ont moment wéru koor su wéru koor là, ma ak gi gi euh, mbaxane mi commencé dugg ci ba la deuxième condition bi waxul ni da ngay yéene ni naa bàyyi def bàkkaar ba weer wi jeex déedéet waxoon naa bàyyi def bàkkaar ba bis bi jeex déedéet tuubu tuubu àjjuma ni nga jël ci bàkkaar kooku nax sa bopp la tuubu weeru koor fu weeru koor jeexee ma commencé préparer nan laay nan laay demee waat ci dansin yi nax sa bopp la kon tuub da maa ngi fas yéene wa niyatu allah yauda ila dhanbin fi ma baqiya min umrihi li li des ci sa dund dootoo ci def bàkkaar nyet ñetteel ba moy wa an yatrukal ma'siyata fi saatiha bu la fekkoon nga yor bitelu sangara bi bayiko ci saasi bu la fekkoon nga joxe joxe rendez-vous ak ku jigen ci bàyyi rendez-vous bi te effacé numéro loolu wa an yatrukal ma'siyata fi saatiha in kana mutalabisan biha ndem fekk na mu nekk ci waaw bismillah radiyallahu anhu aha nee na maam waaw ndeysaan nenemam, dëgg la nee na borom ki ki dal ci xal i dañ tegaat ah man dama ko tegaat nee <laughs> ki jël ci xal de waaw hmm. ah dafa tuub merci nee na borom Tuubaa nee day mel jël sa loxo bi teg ko ci xal te gisoo ko woon boo ko xasee teg ba tëb doo ci delluwaat tuba ngoog tuba ngoog kon ma ngoog kon yàlla nee na xul yow sayyidina Muhammad waxal lilladina kafaru ñi nga xamante ne ñoo weddi yàlla les mécréants ni in yantahu bu ñu daytaloo bu ñu décidé bàyyi in yantahu bu ñu bàyyee bu ñu terewoo yàlla nee na man maa ngi gën a baax olof nee day wax olof day wax naan kuy baax yàlla mu la gën a baax képp kuy baax yàlla moo la gën a baax wax nañ fii démb kaawu kaawu Omar ibnu Xataab kaawu Omar lépp luy mbonte Omar def na ko lépp luy mbon rek Omar def na ko waaye tey mooy kan tey Omar mooy kan ci lislaam bi Omar tey xoolal lan ngay peser ci islam bi tey ñaata ngay gis ci jullit ñi ñu tudd Omar kenn ngi nii Omar Fall Asfiyaay Omar. et pourtant Abu Jahlin ma nga woon de waaye amul turandoo de ci ci ci ci ci ci jullit ñi est-ce dégg nga ko dégg nga ko ñaan kii mooy turandoo Abu Jahlin wala ñaan kii de mi ngi tudd Abu Lahab doo ko dégg de doo ko pourtant ñoom ñëpp ñoo bokkoon famille waaye tey gis nga l'islam ni muy purifier doomu aadama dalay laabal l'islam dalay laabal bala nga defoon kenn dootu ci teg bët. tay ko ni wul omar amon na ay jaar-jaar du ko gem nit day jooy ci mom am dom ni teuf tudina ko omar ibn khattab lo ci man dara wala ku jox yalla sa bop rek yalla ya sa gannaaw yalla téela sa gannaaw ta ki dem ba ki dem ba am dom bu jigen omar ibn khattab dem ba am dom bu jigen ba dom bi mag and ak mom ci all ba yor pel yor boom di gas dom ji naan ko papa loy gas muy gas ba tolloog moom mu ko rek dugal ci pax mi nee na may suul Omar nee na may suul di dégg baat bi muy jooy di suul ba déggatuma baat bi ma xam ne dee na ki def lu mel nii daana toog ci wetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko fàttaliku bu ko fàttalikoo bëgg a jooy yonent bi nii yonent bi def ko nii ni ko Omar na nga xam bëgg a tuubee ci lislaam gi ci nga mel ne ku ku juddoo ki sa biiru ndey al islaamu yajubbu maa qabla al islaamu yajubbu maa qablahu l'islaam day am amnistier lépp li nga jaaroon ci mbon da koy effacer kon tuub day effacer lépp loo jaaroon ci mbon bokk na ci ñu ëpp cër ci diine ji ñu ëpp cër mooy ñu amoon ay jaar-jaar dina ki am jaar-jaar ba tuub ci yàlla ba ñëwaat commencé exercer du bokk ak ki nga xam sax mu def bàkkaar kii ki ki ki amoon ay jaar-jaar mooy gën a baax ki nga xam mu mus cee jaar moo tax sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis ni xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islam mooy ñi nekkoon ay tànneef ci jamonoy ceddo bu ñëwee tuubit ñoom ñoo nekk ay sang fii ñooy nekk ay sang ci jaamu yàlla ñooy am ñooy nekk ay sang ci ñoŋol seen bopp waaye ñooy nekk ay sang ci fit kon ñu dem nee na nag waaye nag buntu tuub buntu tuub dañ koy tëj buntu tuub sayyidina muhammad neena dañ koy tëj moy bu jant bi bu jant bi wolbeuti ko neena te ne tëj nañ tuub nitit bu deme ba egg egg ci falawla idha balagatil hulquma wa antum hina idin tanzuruna da dem ba tollu ci xar xar le dem ba gis malakul mawti foofu tuub jeexna way fi fii eggoo foofu jant bi sawé jant kan jant bi fenke soowu danañ ci àgg jant bi jant bi fenke soowu xam nga jant mi ngi fenke penk mi ngi fenko mi ngi fenke fii mi ngi fenke penku di soowe soowu waaye nañ dem ba contraire bi am mooy dem ba ñu xëy rek jant bi fenke fii bu boobaa nag tëj nañ buntu tuub feeg egguñu foofu nag képp ku tuub ci yàlla yàlla mën na laa mën na laa baal yàlla na yàlla nangu ñu suñu tuub kon yuux far yàlla nee na def na baal lahum ñeel leen ñoom ñu defoon ay bàkkaar maa qad salafa la paase woon waaye nag yàlla nee na wa in yahuudu bu ñu delsiwaatee ca la ñu nekkoon ay aadu ala kaanu alayhi dañoo dellu ca la ñu nekkoon tuub ci yàlla ba noppi delluwaat mooy comme ñun ni ñu def rek Sénégal gi dama yàlla baal Sénégal tuub delluwaat tuub delluwaat tuub delluwaat nee na ah loolu nag bu ñu ko defee ah faqad madat faqad madat sunnatul awwalina nee na yoonu ñu ma jaaroon ca ak jëflanteeg ñoom loolu mooy loolu mooy weyaat rek mo ñama jëflante wo nak la nation yi passé la laa ak ñoom dégg nga moy sayufalu sayufalu bihim ma ma faala biman qad mada neena na wasaala ala nahji ila damaari fi dunia wal jahimi fi l axira nee ña ña ma jëflante woon ci ñu jëkk ña mooy tuub ma baal leen ñu tuubaat ñu daal delluwaat ci mbonte nee na ma jëflante woon ak ñoom laay jëflante ak yéen ñii yéen xeet sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ne ma jëflante woon ñoom ci jéem maa nax te seen bopp laay la ñuy nax neen foofu laay foofu laay jaar yéen lu mu teg kon in ñeen eh, nee na nee wa in yahudu bu delluwaatee nag ci la yàlla tere woon bu boobaa faqad madat nee na na sunnatul awwalina nee na nee na yoonu yoonu ma jëloon ca gaaña ñu jëkk ña moom laay jëlaat wa qaatiluhum mooy teg waa ah. wa qaatiluhum yéen jullit ñi na ngeen xeex ak yéefar yi wa qaatiluhum na ngeen xeex ak yéefar yi xatta laa takuuna ba du am ba du nekk fitnatu fitna mooy bokkaale yàlla bokkaale yàlla na ngeen xeex ak ñoom ba bokkaale yàlla du am almufassiruna ñiy firi alquran dañoo wuute ci ci fitna gi ndax mooy bokkaale ndax no li ñu wuute ji ni mooy ndax shirku mën naa jeex ci kaw suuf si wala du jeex ne ndax ndax baat bi dafa ñëw nekk nakira mooy dafa ñëw nekk nekk noo indéfini وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله نين خيخ اك نيوم با فتنه فتنه دو ام موي بوكال دو ام مجي ويكون دال دي نيك الدين دين كله لبم لله يالا بروم بروم تيري لاج اب لاج موي موجي ني مونخ لي ني ساكو موي خيخ guddeeg bëccëg ba sirku jeex ci àdduna bi ñu ne loolu ta nekk mun ta nekk ndax ndax bokkaale daan na am ci jamonoy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ñu ñu ñu ñëw dëkk ak jullit ñi tey nangoo joxe impo lii lii li lii cité Médine teg ci ay conditions yi ñangu ñangu cee jaar et pourtant ña ngay bokkaale ba léegi ñu ne kon loolu mooy weddi mooy weddi mooy weddi wax boobu kon waqaatiluhum na xeexak xeex ak ñoom xataa laa takuuna ba du nekk fitnatun fitna wa yakunu daal di yakuna wa nekk ad diinu diine kulluhu léppam lillaahi ñeel na yàlla lum mu teg ah wa in tawallaw mooy topp wa in tawallaw bu ñu nag dëddoo bu ñu dëddoo faalamu xam leen ni anna allaha naka yàlla mawlaakum mooy seen sang na nga xam ni bu ñu dëddoo faalamu xam leen ni anna allaha naka yàlla mawlaakum mooy seen sang yéen yéen yéen yéen yéen jullit ñi te kat niama baax na niama bokkul ak naam naa am mooy waaw mais ma mooy baax na niama gis nga masque rek moo leen neex ma waaye yax la benn la naam nuun ayn miim gis nga am ak ma neex ma masque yi mooy vocalisation yi moo leen wutale kasra eh, kee naam la kasra la kee fataa am ca kaw ci nuun nga am kii nag niama boo ko maasul woon nga bind ko nii mu ni wétti rek mën naa am do xam moy lan lu dul nga def un peu de recul xam moy lan waaye buñ commencé nag nga nga nga nga nga xam ni am nañ différence niama baax na gis nga niama baax al mawla kilifa googu muy yàlla wa niama baax na an nasiru ndimbalam yàlla na yàlla boole ñu dimbali alamu xam leen ni yéen julit ñi annama ghanimtum lépp lu ngeen màng kon delsiwaat na ca butin de guerre bi ñu waxoon ci début saar bi egsiwaat na ci wala moo xam leen ni annama ghanimtum lépp lu ngeen màng min shay'in ci dara lu mën a doon fa ana ilaahi yàlla moom xumusahu un cinquième bi fa ana ilaahi xumusahu yàlla moom moom un cinquième bi wali rasuli ak akub waaw gi waaw gi waawu zaayida la waaw waawu ndollent la waaw gi ndollent la mi ngi mel ne mu ngi mel ne ci alquran la mu wax ca saawu saafaat falama aslama wa tallahu lil jabini falama aslama tallahu lil jabini rek waaw gi waaw gi waaw gi waaw gi dañ ko cee dañ ko cee rajouté wala rajula waaw rajula dañ ko cee dolli rek nga arab da koy arab da koy def léeg-léeg léeg moo ni waaw goo xamante ni du yàq ci signification bi dara ci sens bi dara mooy wali rasuli gii wala moo xam ni anama ghanimtum lépp lu ngeen gagné lépp lu ngeen am ci bagage xare bi gannaaw ba xare bi jeexee ñeent yoon xare lañ koy benn bi ah yàllaa ko moom akub yonentam tax ma yàlla doo ko sédd kon ko moom sayyidina Muhammad moo ko moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa moo ko moom ñeent yi léegi nag loolu loolu euh, am nay am nay wuute loolu am na nay wuute wuute gi wax bu jëkk bi imaamu Shafii ak ahmad ak ak xataadata moo di ni cëru sayyidina muhammad boobu sallallahu alayhi wa sallam geer daan am ñu jël cëram teg ko nee benn cër gi wax naa dañ koy dañ koy séddale cinq cinq cër quatre yi ñoon guerre ñoo ko moom mooy les combattants benn bi mooy un cinquième bi ngeen jimi def moo ko moom sallallahu alayhi wa ndax mooy cëru yàlla cëru yàlla nag ko fi nekkal moom moo ko fi nekkal kon moo ko moom am nañu ni xumus boobu dañ koy séddalewaat juróom waaye nak al jumhur moy majorité li ñu wax moy dedet khumus bobu ngën ji mbindeef moko mom barakallah legi nak ngën ji mbindeef dem na tey bu fekkon dañu nek ci rewum julit rew mo xamanteni institution ay julit lañ neena guerre am ñu tan ay ñu tan ay askan wi ben ci ben ben ci askan wi ñu dem xalé ji ba ñëw lañ fa jële ci ay financement xam nga legi gis nga li boo ko toppoon moo di ni euh, léeg-léeg guerre am guerre am ñu dem ba ñëw bu guerre bi jeexee ñu demoon guerre dañ leen jox am am wala déet ay financement lii mooy base bi ci lislaam lii la moo di ni kii wax kii waxal diine ji ki fi nekkal diine ji ah un cinquième moo ko moom moom un cinquième bi moo tax boroom xam-xam yi ba fi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jugee ahmad Nena, ahmad ak shafii nee na cër boobu dañ koy delloo xalifa bi dañ koy delloo muslimina mooy su geer amee buñ jëlee bagage yëpp ba teg ko buñ jëlee ñeent yi boole ko ak yoon xare un cinquième bi nañ ko jël jox ko xalifatul julit ñi ndax comme moom mooy yendu ak di fanaan ci seeni aajo jor ndigal li nañ ko jox un cinquième bi loolu la ahmad wax اك امام الشافعي اك قتاده وايي كوم ابو حنيفه ابو حنيفه موم موي بلن غيرمي داخ نجيري اوفيسيال تي ادنا بي تي العالم الاسلامي نينتي لا مذهب مالك مذهب الشافعي مذهب احمد مذهب ابي حنيفه نينت نينت مذهب مو نينت ايكول يي نينت ايكول يي ньо غنو دونت امنا يين مذاهب نا يو خامتاني دانكا دانكا سيغونو من نكي جوخي مثال مذهب اوزاعي mu nekk côté Cham côté Syrie wala ñu ci jël mazhabu zahiri yi aussi mazhab la waaye ñeenti yi moo gën a siiw ci àdduna bi ci àll alamul islami laa bëgg a wax ci masala bii nag Abu Hanifa nee Abu Hanifa nee un cinquième boobu comme ngeen dimbindéef jóge fii nañ ko partagé waat ñu doon guerre li ko dégg nga ma un cinquième boobu nañ ko partagé waat ñu doon guerre ci misaal su ma ko woon jege la bu mu jege la moo ji ni kon Abu Hanifata kon dàkkoowul caisse noire dina dégg wax bi caisse noire caisse goo xamante ni buur moo koy moom teg ko amul contrôle fond politique xaw ma nekk lan daal dégg kon liñ ci ciy jàngat mooy dàkkoowu ji waaye bu dee ñii nag ci gën laa jëlee maanaa bi bu dee Malik bu dee plutôt euh, imam Shafii ak Ahmad ak Qataada kon d'accord nañ ki nga xam ni moo jiite am réew. jiite jullit ñi ah d'accord nañ kat mu am luñ ko jagleel loo xam ni lii kat bu demee ba am besoin ci lay dellu loolu leer na waaye ah, ku mel ni ku mel ne ku mel ne Abu Hanifa moom dafa dafa dàq loolu waaye nag ar raajih li li ñuy tarjixal li ñuy lëngal te jumhur wax ko moo li imam Shafii wax ak li imam Ahmad wax kon fa am yi laay kon waalamu xam leen ni anama xanimtum lépp lu ngeen lépp lu ngeen màng lépp lu ngeen màng min shay'in ci dara fa ana ilaahi yàlla yàlla moom xumusahu un cinquième bu mooy xumus ba wala rasuli akub yonanteem dégg nga amna ñu wax naan fa ana ila xumusahu li rasuli am na wax loolu bu fekkee da nga wax ni waaw gi waawu zaida la bu de waaw lañ ko dolli fa ana ila xumusahu li rasuli moo ko moom walidil qurba ak ñooñ jégué ñaale kon un cinquième bi li rasuli ak walidil qurba moy jégué ñaale jégué ñaale nak moy ñan jégué ñaale yi jégué ñaale yi wax nañ ni moy banu hashim ak banu abdul muttalib loolu imaam Shaafi moo ko wax ak ahmad mooy un cinquième boobu sayyidina muhammad moo ko moom sallallahu alayhi wa sallam ak ay jegeñaaleem ak ay jegeñaaleem jegeñaale nag ñu préciser nii mooy ñi nga xamante ni mooy giir haashim mooy giir gi nga xamante ni ci la bokk am na ñu ni mooy jamiu qurayshin mbooleem ku bokk ci qurayshin ci nga bokk mbolem Qurayshin moy giir gi nga xamanteni ci le sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bawo ñu ni am ñu ni dedet banu hashim la ak banu abd mutalib lol loolu imam shafi moko wax ak imam ahmad am ñu ni kat moy banu hashim dong ñoko mom banu hashim banu hashim moy giir gi nga xam xam nga Qurayshin daa am ay ay tribu yu ci génne ay tribu yu bari yu cee génne léegi nag tribu yooyu nag am na tribu bu ñuy wax banu hashim mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy sanwu ñooy reetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñoo gën a jege ñoo ko gën a jege nga xam ne ci la abdul ci la abdul mutalib di maamu yonent bawoo loolu ki ko wax mooy abu hanifata nee na nee na banu hashim ñoom ñooy moom un cinquième bi am nañ ca léegi nag dawil qurba ba mu jàllee dayu xurbaa googu ndax la moo tax ñu jox leen ko un cinquième bi ndax li qara li qarabatihim am li faqrihim looy laaj la mooy seen ñàkk moo tax ñu jox leen ko wala seen position familiale seen position familiale moo tax ñu jox leen ko loolu aussi it laaj la loolu laaj la waaye nga dem ci imaamu Shafii ba tey ak ahmad ak jumhur li ñu wax moy da tax ñu jox jox leen ko moy jégué gi ñu jégué sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo tax ñu jaglé leen 1/5e bi lool la lool la lool la imam shafii wax ak ahmad ak jumhur waaye abu hanifa da ñu dedet yuta yuta banu hasim faqat lil faqri mais dañ ko jox banu hasim ngir lan ñàkk gi ñu ñàkk bu fekkee ñàkk nañ ñu jox leen ko bu fekkee nag am nañ ah nañ ko dugal nañ ko dugal ba tey ci ci carte yi nga xamante ni ñoom lañ séddale woon les combattants moo tax lu am solo la waaye li ci wér nag li ci wér nag li ñu tarjiixal mooy xawlul jumhur mooy majorité bi majorité lislaam bi li ñu wax moo ñuy daal moo ñu daal nañ leen ko jox ngir lan gi ñu jege Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy mooy loolu li koy expliquer moy fi Sénégal yi nga dégg ñu ah ki kat ab sërif la ndaysan jugee gànnaar wala mu jugee Maroc wala mu jugee Algérie ñew jege jege sayyidina Muhammad ñu laajal ko ci jakkay jox ko wala ñu wala ñu laajal ko ci cérémonie jox ko ben mu dem Tiwaawan ñu laajal ko wala mu dem Touba ñu laajal ko wala ndiasan ñu laajal ko wala tiaraba ñu laajal ko wala Kaolack ñu laajal ko dégg nga loolu yanu manala ndax jéegi jéegi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kon gis nga lii moo koy expliqué moo tax moo tax al jumhur nee nañ même bu ñu amee it même bu ñu amoon ay milliards waaye le fait que seen dret dafa nekk deret Seydina Muhammad nañ leen dugal ci un cinquième boobu c' est important kon wax na ni waalamu annama xalimtum min cheyin fa anilaahi xumusahu wali rasuli wa walidul qurba mu yeskan wal yataama ak njërim yi ci lañ bokk ak njirim yi ca lañu bokk njirim yi ca lañu bokk dangeen ci dañ jox ci un cinquième bi moo tax l'islam buñ ko appliqué woon ci ay institution suñu institution yi buñ appliqué woon l'islam jàmm day am jàmm day am waaye boo toppul sunna da sonn rek topp l'islam mbaa sonn rek di nga di nga essayer di nga essayer lu nekk waaye da ngay mujj rek gàllankooru waaye boo adopté woon principe l'islam les principes directeurs de la charia boo ko adopté woon noppalu njirim bi aussi njirim bi aussi wax nañ ci njirim bi war a jot un cinquième boobu ñu war ko cee boole ñu ni faaw mu am ñeenti melo yii moom njirim bi bu jëkk bi mooy mawtul abi foog njirim bi baayam dee nit bi ko tuddee njëriñ te baayam deewul moo tax wa dee wolof sax ki baayam dee la ñuy tuddee njëriñ mais ki yaayam dee lu ñu tuddee baayo jërëjëf président baayo gis na kon boobu benn la de nga kon foog baayam dee ñaareel bi mooy al islaamu foog mu nekk jullit bala moo dugg ci un cinquième bi foog mu nekk musulman aussi njëriñ bala ñoo wax njëriñ la aussi day fekk mooy lan man maata abuhu walam yablugh mooy koo xamante ni baayam génn àdduna alors que booba majeur gul woon ku koy ku koy njëriñ waaye man mii ma am ci misaal 60 ans wala 40 ans wala 50 ans wala 30 ans wala 20 sam baay dee du ma njëriñ de fekkee majeur naa du ma njëriñ du kon ñetteel bi kon wax naa wax naa bu njëkk bi mooy foog baay bi dee mu nekk jirim ñaareel bi mooy lislaam ñetteel bi waa ñaareel bi mooy bu mu gént mooy bu mu majeur ñetteel bi mooy na nekk na nekk euh, jullit ñeenteel bi na am na am aajo na am aajo mooy na ci am besoin waaye njirim boo xamante ni baayam da koo bàyyeeg milliards gars yi guerre yi ba ñëw ñu ko boole ci un cinquième loolu raisonnable wala déet raisonnable lul ndax moom am na ci kontam lu mat nangami milliard kon kooku soxlawu ko kon loolu aussi loolu mooy loolu mooy ñeen loolu mooy ñeenteel bi kon ñoom dañ ci am wal masaakiini dañ ciy am kon wax na wax anama xamtu min sayin fa ani laay xumusahu wali rasuli wali dul xurba lim na ko moo ñu jege ñaale borom jege ñaale yi wal yataama ak njirim yi wal masaakiini ak miskin yi miskin mooy koo xam ni la mu am doyu ko mooy li xew Sénégal rek mooy xëpp xelu da ngay xëpp dem xelu jiwaat mooy koo xamante ni dencoo dara am rek joxe ko dépense loo am joxe ko dépense kooku mooy koo xamante ni ah, li mu am doyu ko kon al miskinu mooy man wajada maa laa yakfiihi mooy koo xamante ni li mu am doyu ko koo koy ngirim donte nag wuute am na ci diggante faqiir ak miskin ñu ni faqiir mooy nangam miskin mooy nangam wax ji def ci bari lool lool lool mën na mën na jël suñu tax waaye ala kulli daal miskin daal bokk na ci ñi nga xamante ni dañ leen dugal ci un cinquième boobu un cinquième boobu aussi wax nañ ñi wax nañ ñi ku mel ni Abu Hanifa benn benn parti ci ñoom wax nañ ñi bu fekke rew mo xamante organiser wuñ ko Seydina Mohamed newatu fi 1/5 bobu nañ ko duggal ci ay bien public nañ ko duggal ci ay bien public waaye buñ ko jox buñ ko jox ko xamante ne ñaan mooy imam bi wala nañ ko jox khalifa bi nee ne nañ ko jox nañ ko yobbu ci ay bien public par exemple nañ ko tabaxee nañ ko tabaxee tali wala ñu wala wala ñu wala ñu wuté ko ndox ndox mo xamante ñepp ko bokalé gis nga moy ci al ci al masalihul amma nañ ko ci duggal aussi boroom xam-xam tudd nañ ko wal masaakiini ak miskiin dañ ci dugg wal masaakiini ngeen ma moytu wax masaakiina ba ñuy jàng ca daara ja waxaloon nañ ñu kiini kiini njeego kiini kiini njeego njeego mooy ñaata juróom-benn njeego ma mooy juróom-benn ñu ne ñuy njeego njeego kiini kiini njeego njeego mooy njeegom mooy ci tukulóor ci tukulóor njeegom ah kon kii kiini njeegom ñu naan wax maam xooloo magalaan tafaaloo magalaan wal jaari jigéen kuntum lan faal wala amina baraan kay laa yakuna duwatan ci ashri bu dul aaya yi bu dul baat yii rek xamal ni yaa ngi wax masaakiina ah. bu dee bii rek ca la bokk lu mu wax wal masaa wal masaa kiini lu gi topp wam ni sabiili li ngi topp in kuntum moo tax mu kuntum lan faal soo waxee wal masaakiini ni sabili baat ba ca topp rek ci lañ daan ci lañ daan ràññee ndax masaakiini nga war a wax kii masaakiina nga war a wax ñu ne ñu ne ba mu daj juróom benn yoon la masaakiini ñëw au delà de juróom benn yii li ci des yëpp masaakiina la dañ koy vocaliser ca kaw dégg nañ moo la waxaan juróom masaakiini ma war ñaan war ñaan waxaan kiini kiini njeego njeego ma kiini kiini juróom benn la xooloo ma nga laan mooy boo dee ci alquran laan mooy baqara mooy wal masaakini wabni sabili wa quulu linnaasi xusnan ca baqara moo moo tax ñu ni xooloo ma nga laan tafaalu ma nga laan wal masaakini wabni sabili wa ma tafaalu moo tax mu ni xooloo ma nga laan tafaalu ma nga laan ñetteel mooy wal jaari mooy jigéen jigéen mooy nisaa yi moo tax dafa ne wal masaakiini wabni sabiili wal jaari dil qurba gis nga wal jaari dil qurba wal jaaril junubi mooy wal jaari mooy wal jigéen kuntum moo nekk nii nag tey lan faal kuntum wal masaakiini wabni sabiili lu ngi in kuntum kuntum lan def na ca kanam tuuti buñ lañ ci ag wala amilina ma nga balaan moy sar yu top ci lan fal gi moy tawba ma ngi ñogu baran wala amilina ma nga baran moy inama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wala amilina do ko ñëw wala amilina moy wala amilina ma nga baran juroom benel moy ah, kay laa yakuna duulatam bayna al agniyaai minkum moy kay laa yakuna ca xasri ca xasri mooy saaru xasri ci saru yu top ci qad sotu mujadala kon jàpp nañ ko ah. kini kini njeego njeego ma kebe njeegom xoolu ma nga laan tafaalu ma nga laan wal jari jigen kuntum lanfal wal wala awina balan kay yakuna dulatan cha hasri de nga alquran loolu moo nga japp badi baat badi niroo boko boko takke non rek danaka doto doto rungeeti ci alquran mag fayal ñu len nee na kon wal masaakiin yi ak miskiin yi ca la ñu bokk ndax dañ ci am soxla wabni sabiili ak doomu yoon mooy koo xam ne dafa day tukki ki tukki wala jëm wala jëm dakaar ci misaal mu jóge Ndar wala jëm dakaar ñëw ba ngaay taga témbe amul paas bu ko delloosi kooku dañ ko dinañ jël ci un cinquième bi jox ko mën a ñëwaat ci am réewam kon loolu am solo la jox ko lu mu aajowoo ci mën a dellusiwaat ca réewam maanaam jox ko laa loo xamante ni dana mën a couvrir aajoom dana maa sadd dana maa sadd sadd aajoom wax nañ ci aussi ci même même azaka yit azaka ibnu sabil gii mooy ki tukki ba taga témbee mënul egsi buñ koy jox donte am na alal nañ ko jox loo xam ni ci la am besoin mooy li koy jàllale mu jugee fa mu tëgg a témbe woon ñëwaat ci mu réewam lañ ko jox nee na loolu lañ koy jox. beneen bi moo di ni ghanima muy mangi mi wax muy butin de guerre ak azaka daño charte foy jox fokoy jox jox ko ab julit deng azaka azaka la wax layonal, li yalla yonal ak butin de guerre buñ koy jox nañ ko jox ab julit ngir lan ngir minal xolam kanta bu dee nak, nak man nga sarax julit loolu aussi précision la bu sewa sew mat nañ ya. man ko baye xel saraxé boy saraxé man nga sarax ku du jullit saraxe waaye nag azaka ak ak ganima muy mang jox ko ab julit est ce xam nga lutax ku ku xam lutax ci jangat azaka merci azaka awlu yalla la ganima it awlu yalla la lu ngeen waxone qul anfalu lillahi war rasuli gis nga butin de guerre yàllaa ko yoonal kon alalu yàlla asaka alalu yàlla yàlla moo wax ñañ lañ ko war a jox waaye nag ah, ak woyofal ñëw na ci koo xam ni koo xam ni mi ngi fréquenté musulman yi bëgg xol bi commencé nooy xol bi commencé nooy ah mën nañ ko jox asaka xol bi bëgg xol bi maanaam mi ngi commencé di xam ni lislaam nekkee ni lislaam ni mu tabee lislaam ni mu ni mu mënee dimbalee di ko waxee di ko waxee di ko doxee ah nañ ko jël at mu nekk ñu jël asaka yi dagale ko jox ko ndax mu gën a xam tabeek lislaam kooku aussi kooku aussi ah, wax nañ ko kon wax la moo xam leen ni anama ganimtum lépp lu ngeen ah, mànge ci guerre min shay in gis nga min shay in loolu ma na bàyyi xel man ma ma ma taxaw min shay'in li bo xam ne nañ li tax yalla wax min shay'in moy di ni deureum bu lewul xajul ci biir xajul ci wa waalamu annama ganimtum min shay'in mu ni ñu ni kon buur bi bi lu mu am pouvoir pouvoir it na yam ci salaire ndax wa alamu annama min shay'in lepp lo dagale ci ay impôt wala nga dagale ko ci ay TVA wala nga dagale ko ci ay eh, ci ay juuteeg nangam nangam da nga xamni ni moomoo ko ku askan wi nga jiite ñoo ko moom wax motax yalla tuddu batu min shayin shayin moy benn chose rek bu ndaw de nga lu mu tuddu tuddu tuddu rek min shayin la nee kon nena kon xaju ci motax sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam waxna ni képp koo xam ni man man katama fa ma fawqahu kana hululan yati bihi al alqiyamati allahu akbar nee na guerre bu amee guerre bi jeex am ku sàcc loo xam ni lu toll puso la lu ñu ñaw ñawukaay wala puso nee na na nga xam ni bu ëllëgee yàlla dina la ko takkal sa kaw loxo bi nii ëllëg weer na ci kanamu jaam bi allahu akbar gis ngeen mooy nga jël ko guerre bi jeex ma dekkoon ci guerre bi verre yi wala montre bi wala kurus gi ñu ray ma ci misaal ma jël objet bi denc ko avant ñuy séddale sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bu ëllëgee man mi ko def yàlla dina ma weer ci kanamu jaam ñi nekk xuluwul ñu takk ma ko ëllëg clé bu si penki bala maa jël kay nañu séddale lu ma yàlla jox ma jël ko ndax yàlla mooy séddale akub yonenteem ko loolu mat na bàyyi xel kon ñi jiite ñi jiite ay mbooloo wala ñu jiite am réew wala ñu jiite ay poste nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel waalamu annama ganimtum min cheyin fa anna ilahi xumoy kon chey rek la wax pour lam pour pour pour alerter waaw waaw waaw incha allah ان شاء الله ان شاء الله دي جف كبير ان شاء الله كون ني ني نيوكو موم فاني لا يخمسه وي رسولي وي دي القربا اك ني جيغي نالاي موي بنو هاشم اك وخين جي وخ سانك وليتاما اك نجيريم يي نجيريم وخناني موي كو بايام ген ادنا فك ماجورول وابن سبيلي موي كي توكي وون دونتي امنا علال واي مو ام بروبليم تي يول وي نانكو جوخ وابن سبيلي لوم توب مو نغين كو بايي خيل نك تي ترتيب بي in kuntum ndéem nekk ngeen amantum billahi bu dee gëm ngeen yàlla da ngeen topp yàlla wax gis nga yàlla daa tudd daa tudd kees gi rek keesu kees noir gi wala tudd fond yi rek daa ci teg nekk ah bu ngeen gëmee yàlla moytu leen ko ndax xam nañ ni foofa la fay juddoo ci alal daa bari impôt la fay génne daa bari kon soo ragalul yàlla man nga cee man nga cee détourné juuteeg yii patente yeeg TVA yi bu la buñ la contrôlé wul mën nga cee mën nga cee mën nga cee détourné moo tax yàlla tekki ni in kuntum indi baatu in au indi baatu isa in kuntum in kuntum dem nekk ngeen amantum di gëm ci yàlla labayka hmm. jàppul mm-hmm. muy mm-hmm. gis. lu mel noonu ci way politique yi. wala way gouvernement mm-hmm. bi. di tourné alal ah. yu mel noonu di ko yóbbu ci kër diine yi. te mu wóor na ni seen baax. wallaahi wallaahi. loolu loolu mën naa jàngale. ak mën a jàngale. ak mën a jàngale. dëgg dëgg la de dëgg la de dëgg la de dëgg la de dëgg la de dëgg la de mat nay artu li nga wax deug la mat nay artu lol day artu ci mo jaadu woon waaw wallaahi ëpp na sa salaire waaw moo kon la la moo tax gis nga la gënoon rek la gënoon mooy xam la xam daara yi ñu am autonomie ñu organiser ko de telle sorte que ñu am autonomie ba du ba ba tey jii ab taalibi bu ñu wax ni dafa nekk taalibi ci kër sàngam yoonam sax yoonam du nekk ci jël am am bi yóbbu ko kër sàngam fekk na bu organisation am avant rek fekk na këru diine gi am satisfaction loolu moo jaadu wotal leen loi organiser leen ba ñu am seen am seen financement bop ba chaque wèr ñu jot ci chaque wèr ñu jot ci wala mois bu nek wala événement bu nek ñu jot ci lool mo jaadu won waye nak malheureusement suñu réew yi ah, dañoo moomagul suñu bop 100 dañ ko dañoo moomagul suñu bop man na bis bis bu ñu moomee suñu bop dana dana dana dana saafaraw benn bi top moy li nga wax deug la mo di ni kilifa day artu kilifa day artu lu quran wax wax nañ ko fi dembu yakarna wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan mooy wattandiku len fitna yen kilifa yi wattandiku leen seetaan wattandiku len setan bu ngeen setané ba ay wi tak du ngeen ci ku ko na responsabilité ñepp la mo xam iliman bi la mo xam oustaz bi la mo xam burum kër gi la mo xam kum ci mën doon bu setan. moo tax sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waxon na ko ci hadis waxon na ni as sakitu as sakitu عن الحق شيطان اخرس انا يعني شيطان نيكو رك موي آه، كي نان دافا بون دافا ام غريماس كانم كي دا نان موي ابليس ديد نانا كي ورا واخ دغ وخول دغ غيس ني لي بوكو واخي مصافو مو نوبي جي نانا شيطان لا نانا شيطان بو موما لا اخرس موي كو موما الساكت عن الحق شيطان اخرس كي نوبي تي دغ تا بوكو واخي مصافو مو نوبي جي اه شيطان بو موما لا كون لولو mat na bàyyi xel ñu dem euh, kon fa ani lay xumusahu wal rasuli wa dul qurba jege ñaale yi wal yataama njirim yi wal masaakiini ak miskiin yi wabni sabili ak euh, ñi tukki woon mooy doomu yoon yi doomu yoon mooy koo xamante ni yow danga nekk ci tukki mooy loolu mooy ibnu sabili na ngeen ko def comme ni ko yàlla waxee waaye nag in kuntum xam nga in ñaare bu ko araab waxee lay nekk li tashkiiki li tashkiiki wa taraddudi in in day def ki la dut gis nga gis yàlla nee na bu fekkee da ngeen da ngeen di dute seen ngëm mën naa du ngeen ci jaar waaye su fekkee dutewu leen ko rek ah na ko def in kuntum ndem nekk ngeen amantum di gëm billaahi ci yàlla wa ma anzalna ak li mu wàccee ala abdina ci sama jaam bi muy Seydina Muhammad bu ngeen gëmee yàlla gëm alquran ni ma ko ni ma ko yoonale nangeen ko defee noonu wa ma anzalna ak li mu wàccee ala abdina ci suñu jaam bi yowmal furqaani bis bi nga xamante ni ca la taqale dëgg ak neen lu mu teg yowmal taqal jamaani bis bi nga xamante ni ñaari mboolooya ña ngay daje yowmal taqal jamaani bis bi nga xamanteni ñaari mbolo yo ña ngay daje lum ki tek moy moy xare ba dar il taxal jama il taxal jamaani moy xare ba dar diggante julit ñi ak yéfori lum tek yow ma jamaani wallah wallahu yàlla qadirun da ngay xaddam wallahu yàlla qadirun aji am katan la ala kulli shay'in ci lépp lu moo doon ci lépp lépp leuf wallahu ala kulli shay'in qadirun a cheyu mooy lu xeebu lool lu mu xeebu xeebu xeebu yàlla mu koy contrôler yàlla am na am na mën-mën bi am na kattan bi wallaahu yàlla xadiru aji am kattan la ala kulli shay'in ci lépp lu ma a doon bu ko defee ñi ngi da ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp rawatina rajo télévision Asfiya bi nga xamante ni tey jii ñëw na doon jël tafsir bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ko jaarale ci Omar Fall mi nga xamante ni mooy coordonné bisu tay bi ñu ngi koy gërëm di ko sant di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk ko di ko jotal nuyoo ci DG DG Asfiyahi di maam Omar Ndiaye moo ko fi yabal pour mu ñëw jël tafsir bi ndax xam gi mu xam ni fii lislaam moo fi nekk ak njub xam gi mu xam ni l'islam dafa fees banlieue bi xam gi mu xam ni l'islam banlieue bi dañ koy noyyee xam gi mu xam ni këru diine yi dañoo am doole ci banlieue bi loolu moo tax mu bëgg a def participation am ci yenn jàkka yi jël seen tafsir alquran teg ko ci télévision bi teg ko ci plateforme di yi point org Apprendre l'islam et s'imprégner de la spiritualité tijane. Suivez Asfiayi TV, l'air sur www.asfiayi.org Application mobile et tablette disponible sur Play Store et Apple Store. le Khalif général de Tigane, Serigne Babacar Sy Mansour ak Mam maam Cheikh Seydil Malik taala la fondation des sympathisants au service de Tiwawan, ngir tënku ci général des qui ci respecte mesures barrières d'art coronavirus fasciné organisé édition 2021 spéciale sargal Serigne Abdel Aziz Al Amin qui format télévisé et digital Manam, plateau spécial l'un de mes corps lay Leydon, en direct ci Asfiyahi yi ñu ne parrain officiel bu édition 2021 bii Nous ñu ngi ko jagleel Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu ñu ne guddi ga ñi ko fas yéene ci ay base yu neex du Cheikh Tidiane bay Ngagne bay Sidi ahmed bay Sambou ak Pape Malick bay ci walu waxtaan di Oustaz Abdoul Aziz Doucouré ñu fas yéene sur la vie et l'œuvre de Serigne Abdoul Aziz Al Amine le baobab indéracinable de la tariqa tijaniya waaw waxtaane dundu ak nekkinu Serigne Abdoul Aziz Al Amin, guy gi nga xamante ni kenn mënu koo sembi ci ñu oustaz Ahmad Fall fas sur la vie et l'œuvre du parrain de cette édition Serigne Babacar Sy radiallahu taala invité d'honneur ya nag ñu jagleel ko borom baat bu neex di El Hadji Doudou Kenembaï, Mbaye El Hadji Abdoul Aziz Mbaye Sargal Al Amin la s 2 tv vous donne rendez-vous le lendemain de la Corité à partir de 21h sur l'ensemble des supports synchronisés de Asfiyahi Waouh, Sargal Al Amin Pour ñu Korité ba sa 21h jotee ci supportu Asfiyahi yépp inch'allah Al Amin la force de la f 2 بلطف يا إلهي من مرحبا سنغال مرحبا سنغال دي ايميشن بي خاي ندوك يين تي في سن راديو تلفزيون اسفياي بس بو جوت التيني با اديما 7h30 جاب 9h30 دي خاي ندوك يين دي اندي اي ريبيو ام سولو بوك نا تي اي بس بي حديث بس بي بوك نا تي تام درس اليوم اك خبارو بير ريو مي اك بيتيم ريو خبارو تاليبي ميتيو waaye itam bokk na ci bulletin santé ci wàllu wér yaram bokk na ci tamit portrait bokk na ci noble vertu ak écho xadara bi kon nag mi ngi noonu bis bu jot lay doon fii ci seen rajo télévision Asfiyahi ngeen ci ànd ak seen mbokk daara Njaga Samb man nga ñu suivre tamit ci mboolem support yi nga xam ne Asfiyahi am na ko bokk na ci YouTube Asfiya wala ci Facebook Asfiya wala ci www.asfiyahi.org kon nag mi ngi noonu Asfiyahi leeru diine ji يا إلهي عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخلق وسبق نصر حق الحق والهادي إلى صراطنا المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخلق لما سبق نصر حق الحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما ولقى القدير ما سبق ناصر حق حقه والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ماجيقه كل عام بحرمة الشام حق المبين تفتح يا فتح بالمفتاح والفتح المغلق والفتاح حميد يا ولي يا شكور رحيم يا حليم يا صبور لنا بلا وبرضا يقدر أمر وخيرة الإله قاهر من الذي يدعو كما جميلا قصا علينا ربنا كما قبلنا لنا يا ربنا بالفضل ولا لنا بالعدل احسن عواقب الامور يا رازقي تجاهك الكلمه قد سنيت حبيبك وثبت النجاح في حبي عبد لنا التوفيق والإعانة عمانا لكي نؤادر بالحقوق حيث علينا الحق للمخلوق حفظ الذي أودعت من شرائعه ويا بني منفذ البدائع قصدتنا وقوى بالمعاصي أخذ العبد بك ذلولا فتونا بسر ما منت بالعباد أمننا أن غرض الأيادي أخاطب المعن من له الخطاب ويستطابق يا الله علي صل على محمد خير الورى يبني على حق الوكيل الجميع الجليل ولي مهيمن جميل قائم يا باقي علي كافي قدس يا عزيز يا معافي قد يقدر عربي من ذنوبي مغاربا بهوى قلوبي وسعتي الرحمة والغفران جميل الرب والحماية علي علي علي الله زلت في الساعة والأوقات عنه للحنان والعيال هو يجيب عبده المسكين أتى إليه يبتغي تمكينا يعطي ولا من علم يا خبير يا بصير مذل يا عدو يا نصير قبض يا قبض ربي جميع مخيط ودر وشيد قهر يا غفر يا معيد منتقم عفو يا مجيد دليل كل متحير وقال بقضيت فرضيت بالقضاء ما هل من منازع فذاك غيري فردت أمري لك يوم امرؤ ينظر ما قدم يده النفس بما قد وكن إلى ذريتك دينك قد دعله كل فتى قدمه جميع الانبياء نرج ما نرج من طباقي فهو يا الى افاقي اراه رب العرش ما يرضاه ربي رسولك النبي بشير ومبشر نذير وطاهر مطهر قاه حاشر وعاقب ومختفي منجر ونار مثاقب أجب لنا بجاه بابك العظيم عين النعيم والصراط المستقيم لطف يا محسن فأنم غرضا لنا كذا مراد حيث علدا على المقاف سيد صلاتي صل وسلم وهب الهدادي ظمآن ماء الوصل يا رب الفلق ونجي مولاي من شر الفلق يرقق من يرتب الحروف من صلاة فاتح دعاء مؤتمدا بعونك المرغبين الراكعين السالكين المهتدين وآله وصحبه المتقدمين الراكعين السالكين المهتدين وجهت وجهي خاتما لقصده كرما من نوره ربنا يا الله يا الله حقيقة الكون عين ذات طلعتها إفادة Marshall, arham bi oh, apprendre l'islam et s'imprégner de la spiritualité tijane. Suivez Asfiayi TV, l'air sur www.asfiayi.org Application mobile et tablette disponible sur Play Store et Apple Store. شافية لكل سوء وبلاء كافية كافية الحاج منصرنا لكل ضير وشرور نافية لكل خير وسرور صافية والمال والأزواج